arbitre sifflé na final diggante Abou Assef bu Palmarin ak Karim bu Joal di bëggee Vincent Sarr docteur Virosa sa baa ngi bëre final Abou Assef docteur Souleymane Daada borom Sami borom Kaolack doomu Palmarin siyaar naa la docteur Diouf borom pharmacie bi ci Palmarin bëgg naa la Abou Assef daw na jël Karim doomu Joal bi di bëgg waa Joal ndeysaan Dadi Camara sama garaaw maa koy ziar di ko bëgg di bëgg waa Joal yëpp Abou Assef sol na ko naa Karim korose na ko fii ci Marlot ne xooyo dëkk Mbalka Maak le grand champion o jëm gandun naa ko Abou Assef takk na ko Abou Assef Karim Karim boot na far wala Abou Assef Abou Assef Karim da koy xorjog ak moom Karim a déclenché na moom Abou fi mu baax na cey bi final Aliou gay naa ko solo Philippe borom so albe gay naa waa Port Omar Ngalla Ndong maa ngi lay siyaar waaye borom sareet naa ko maamu sareet Abu Asep Abu Asep daan ko Abu Asep de la lamb ji daan na